avertissement Sa Thiès Sa Thiès jël nga avertissement Sa bu Kër Malal ki muy bëreel booy séréer bu marché wala booy séréer bu muusante waa loolu am fii ci tey Sa Thiès à droite booy séréer wàcc na de eh daw na jëli tànk waaye booy séréer teel nga di waaye yow fajaru nga di waaye tëru nañu ko sol na ko Sa Thiès a loxo góos ba jàpp na ah Sa Thiès jël si woon nañ la waaye bañ nga ne doo dem Sa Thiès biir Thiès wàcc na benn dëkk ñaari gaar Madoune Diouf ne na Sa Thiès biir ak benn aéroport ak benn lan a ah, déet da yëpp Lamine arbitre jógal waaye fi nga toog baaxul de ñoo nga ca de dëbb naax walla ca xabal arbitre del buuse kon mbokki Leewtoo TV Lutte TV M Pro fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa Babacar ay addu tey de ànd ak Madoune à gauche ci digg bi Talla Ndiaye ci droite bi eh caxa wala lan botti daan nañu la oh sa Thiès daan nañ la fii ci biir Thiès Thiès Sane Maniang Soumaré booy si la def loolu bu mu sante Talla Ndiaye yàgg ma dun ana Lamine xoolal Sa Thiès ni mu toogee xoolal ma Sa Thiès na mu sukkee Lamine filmer seen zoom yi Talla yaak Lamine ñaari moo féete à droite. Eh, kenn ki du feeñ. kon kenn ki du feeñ Lamine nee bu yokkee du feeñ eh ñaari yaar bu jaxaaw ñaari jël na ko ñaari yaar da ngay daanu ñaari yaar mbaa duñ la daan njëtt nañ la bañ na de ñaari yaar na de nee ko duma daanu foofu. ceesa neex waay. ah déet wuuru Lutte TV Leewtoo 100 pour 100 lamb ndaysaan eh Peter ñi laa ilaha illallah ba sotteegul sotteegul xeex leen léegi xeex a ci des xeex leen xeex leen xeex leen leen jël na ko da koy daan oh ñaari yar ni ñaan na ko daan ko e waay ndaa waa bi reporter moom taal jëlal reporter bi waay xoolal waay reporter bi Lamine waay yi reporter a neex reporter bi reporter bi doom jaa daan lamin e eh, waay ndaw Samba moo taxit neex na mon nu mbaay looloo neex bëgg naa la sox léegi professionnel nga de <laughs> am na ci loo nekk <laughs> sant Serigne Touba bu si waa waaw sant yàlla bu baax ci lan bi nga bëri ak léegi waaw maa ngi sant yàlla rek toog nekk sama ruq rek jàpp sama ñàmbur di xaar. di xaar bi nga daanee ak léegi promoteur yi ñu ngi lay démarché. waaw ñu ngi may démarché kay ñu may démarché kay. mbër lañ lay proposé. jarul tudd mbër mais mbër yi ñu may démarché ñoom xam nañ ko samay adversaire daal lañ may démarché. man maa ko yàqamtiwul woon. parce que dafa am ñu ma bëggoon a bëreel ñu nekk ci combat te yàlla dogal na ñu bëre ba pare ku ma si làmb booleel dinaa bëre moom. balaa ma ñëw ci ñooñu nga tëkk keroog général Malika lan mooy seen problème yéen général non aw ma ak moom problème général champion la aw ma moom benn problème wax dëgg fa yàlla jàmm rek laa koy yéene. mais yéen ñaar seen combat dañ ko promoteur dañ ko. non non promoteur musuma woo ma wax waxu général man daal dégg naa ko moom ci internet yi muy wax affaire yooyu noonu mais général man ak moom du sekkuñu ay waxante wala adversaire bu may bëreel doo sama adversaire ci làmb man visé wu ma général maa ngi visé ñeneen ñu ma war a bëreel. ma a mën a bëri. néew ma la du champion de bañ naa ko ba dama la champion la mbër mu ma yéene jàmm la dama ko yéene jàmm ndax champion la waaye dama la bëgg a xamal ne général dafa am lu tax bëggatuma sax sori ci ay waxam parce que tey champion la te am na loo xam ne dund nañ ko dama koy ñaanal carrière yàlla defal ko carrière bu mucc ay. du ngeen bëre wala du ngeen bëre bu leen làmb boole bu caappee ne làmb boole na leen bo non man du ma général bëreew ma général. lu tax ay xarit ngeen. duñu ay xarit. sekkuñu dara sekkoon nañ ko bu njëkk mais nit ki bu demee ba taxaw ci média di la tëkku ni yow la bëgg a bëreel yow dangay am loo xam rek man doomu aadama la xam naa ne général tey du nit koo xam ne tey damay nekk di waxante ak moom mbaa may sekk ak moom lu dul jàmm jàmm laa ko yéene te mbër bu leen làmb boolee ba ngeen war a bëre yéenante jàmm amatu fa ku nekk day bëgg a ray moroomam te ñaanuma yàlla sekk ak général loolu mu koy ñaanal carrière bu gudd rek loolu laa koy gis nañ la keroog jën kayra ak konti ñuy waaj a bëri nga ñëw samp seen dënd foofu da ngaa jàpp ne ñoo ñooy sa adversaire waaw kay parce que yaa ngi may doog a laaj ci combat yu ma sawar a tontu parce que bi ma bëree ba pare dama ni la ñetti combat yi mooy rëg-rëg giri de daan laa bëgg a bëreel Quench Diène Kaïré ku daan laa bëgg a maar Marley booy Bawol ku daan laa bëgg a bëreel déclaration boobu laa defoon ñi daan nag maa ngi toog di leen déglu ku ci pare rek soo ko pare na pour bëreel. ñi daan ciy génnee rëg-rëg moom rëg-rëg dama ciy génne Reug Reug pour lan. Reug Reug da ngaa ñemee lekk avance am sox. non ñooñu ñooy samay adversaire de taille man nag maa mos a gis ci làmb may ragal wala may dellu ginnaaw wala may lu may ragal moom Reug Reug moomu moo daan grideur moom laa gën a bëgg a bëreel. Reug Reug nga gën a bëgg a bëreel. barki Serigne Saliou Mbacke billaahi wallaahi wataalaahi Reug Reug laa gën a sawara a bëreel guddi yi ñu toll nii. mais Reug Reug yombul la daan guddi yi ñu toll moom a jaax. waaw waxuma yomb daan wala yombul daan man sama gëm-gëm sama esprit dépassé na mba ndax mën naa daan rëg-rëg wala mënuma ko daan su ma mënul daan ñoom rëg-rëg barki Serigne Saliou damay bàyyi làmb su ma demee ba ñooñu mënu ma leen daan te ñuy samay morom ëppale wuñ ma dara ci làmb du coowu làmb du doole du fit du mën a bëre du dara su ma demee bay xel ñaar ndax war naa mën a daan rëg-rëg wala mënuma ko daan damay bàyyi bëre pourtant rëg mu daanee nag promoteur moom sa patron la ko proposé Ama Balde sa doom la non proposé wu ko Ama Balde li ne ci xolam rek la wax mais rëg-rëg Ama làmb du ko waxtaanee gis nga gars nañ bàyyi yooyu Reug Reug champion la def na lu ne ci làmb daan na moroomam yëpp comprendre nga mais taxul mu bëreeg Ama Balde mi ñu naan moog Bombardier wala moog Gris Bordeaux ku nekk am nga say adversaire man ñi may wax nii kuy suivre làmb xam làmb dina xam ni soo ko ay adversaire am la cité tëbu ma tëb naan nañ ma jox Balla Gaye wala naan nañ ma jox Gris Bordeaux samay moroom laa laaj muy Coyens Diène Kairé Reug Reug Boy Bawol ku ma ci am bëreeg moom non non gëju ma waaw parce que sama rakk mooy bëre tey moo waral ma jugee town ñëw Thiès muy bildin di sama rakk man nekk léppam. yéemu la. non waaw Zil mooy Zil Balde. Zil Balde ok gaan dal waaw sëñ Fall. l'organisme du président de la République. C'est lui-même, Pythagore. patron laay Pythagore. Zal mooy patron Modou Lo tamit. laay patron Modou Lo arbitre soufflé na. Zal mooy patron laay patron Modou Lo. arbitre soufflé na Lamine di patron Lamine ak Talla Ndiaye. Babacar yaay sama patron. non yaay sama patron Lamine. kan ak kan ay bu Gambia. mbir nañu rek. building bu ñoom soq. building moo ah, Amadou war a wàcc def na lu rëy. building ay bëre. building bu Bakaaw. Bakaaw ca Gambia. may nuyu waa Gambia. ak ki nga xam mooy Afa Kër Baba Afa Kër Baba nu woon ginnaaw. building bu Bakaaw ngeen jàkkaar lool. eh building wala boog Lamine building bu Serekunda la waaye sox ko ndi Serekunda Aline Mbaye Nder a ngi toog. Ndeysaan ngeen lool la jóge ca Gambia Serekunda Afa de Kër Baba Afa mi daaw bëre na esat jaw jaw ma kodd jaw eh gëdd ko de waaw Afa foo jëm Afa te nga mooy ca course ba te course ba bëre na fa ma reporté ko boo xoolee taxawaay bi dafa may xaw jox mool 1 waaye a nga mbër a maa oh mon un mon un champion ba sama xel day dem ci Mbagnick Ndiaye ay réew Robert ay réew yu yu toppante ca Sine mon un mon deux mon un waaw moom moom ay réew la mon la mon un daa am mon deux am yaa nga jëm Bikol ay Bikol dëkku ki nga xam ne mooy ñoom Antoine Bakhoum Antoine Bakhoum ndeysaan Paul Maurice Sobène o oh, ndeysaan e daw na jël ko daw na jël ko e wër na ko dombo building wër na ko ndombo Afa Kër Baba daanu nga mu ngi koy dóor mu ngi koy dóor e xalem Serekunda ba mbërëm soq mi wër na ndombo waaye mbërëm soq mi wal bit gang ak ginne moori ak ginne arbitre e, arbitre jël amulam arbitre lu xew Aline Mbaye Nder puusal Aline Mbaye Nder puusal doo arbitre Aline Mbaye arbitre woo mbër nga bàyyil arbitre bi

maa nga ca da waa nga ne ah, dix mille benn problème ah dix problème day waaye tegagul kenn problème nag loo ci mën a dégg bëri problème waaye wàlla gu ko ki muy bëreel waaw problème cene de bu fa dëkkee di bokkam guy gi dix dix mille problème vaasu daw na jël ko dix mille problème laxasu na ko dix mille yee waaye yéen problème mi bëri na problème di la ilaha illallah waaye yow kii kay million de problème la am million problème waaye vaasu vaasu dañ laa buddi ba sa biir weex ci Thiès yëkkati la ba ca kaw vaasu buddi ko ba ca yëkkati ko ba ca kaw xajji ko dóor ko ci suuf asamaan jox mu bañ ñu ne suuf am waaye vent su ngi koy sotti ndox waaye maa ngi lay bëggee waaw lay ziar di sant yàlla biir macha allah waa jëndoran bi tey mais comme tey moom Thiès moom tey amateur laa rek yaa gis ñëw ànd ak sama grand Zal Mbaye ñëw rek am pour supporter la am rek amateur rek quoi surtout waaw waaw Ah? waaw waaw tey loolu moo fi indi parce que fii moom ku ne xam na ne jandeen Thiès la boobu soriwuma dara kon tey jaar na tey bu làmb amee tey ma bàyyi sama activité yi yëpp. a ngi noonu ñu jàkkaarloog moom tey ci Thiès. Zal ñu ngi lay ziar. damaa lay ziar. damaa yaa ngi am jàmm. di sant yàlla. teewaay bi tey Thiès lan moo ko waral. waaye te a Thiès moom Thiès day suñu dëkk ku ne Thiès na jandeel ku ne jandeel na cees ñu boole ma si invitation yi làmb ji si jaxate kon damay sar bu ñëw waaw di la sant di gërëm tamit vraiment di kontaan si combat yi vraiment combat yi combat neex di nuyu sama waa ji Baye Samba moom it tëggatu la moom moo njëkk a tëgg sama drapeau fii waaw kon ñu ngi sant di gërëm moom it di gërëm ñi ma àndal laay Pythagore sa xarit waaw daje nañ kër Seyka ma ak yow vraiment ngeen taxaw gis seen seen taxawaay yow it vraiment ah si làmb ji ñu yàlla yàlla jàppale leen ngeen dem ba nekk ay télévision yu mag waaw kon mbokk yi ñu suivre ñu ngi ci ñu ngi jàkkaarloo Ousmane Noël Dieng Ousmane ñu ngi lay ziar. maa lay fay mon frère. waa yaa ngi am ngi am jàmm di sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. tey lu waral lan moo waral teewaay bi Thiès tey fii. waaw dama ñëw teew euh, su dëgg yàlla ko mel ni Siri jaxate nga xam ne euh, ñëpp war a jël exemple ci moom Siri Diakhaté gor la Siri Siri Diakhaté euh, nitu couleur la su nitu démb ak nitu tey wax dëgg yàlla daf leen xàmmee moo tax ma jël sama déplacement au nom du ministre Diène Farba Sarr ñëw nag wax dëgg yàlla seetaan làmb ji neex ji nga xam ne maa ngi xaar sama deuxième édition drapeau Ousmane Nalla Dieng di gërëm wax dëgg yàlla tout tout le mouvement MJKDFS et toutes les femmes du mouvement MJKDFS di gërëm aussi le ministre Diène Farba Sarr euh, wax dëgg yàlla dina làmb ji neex na ni mu démarré neex na di ñaan yàlla def si jàmm ak salaam su ko defee ñëpp mën a seetaan si jàmm te ñibbaat si jàmm ak salaam kontaan nañ ci yow trop mon frère jërëjëf mon frère. kon Talla man ci maire bi ci parce que moom suñu soppeel daf ñuy seetaan waaw bu baax a baax tey moom damaa bëgg. waaw waaw ndax seen fans bu rëy laa chaque jour dama leen déglu di leen seetaan kontaan naa lool. vraiment te man amateur mag la amateur lamb la damaa bëgg lamb waaw man waaw. waaw. <laughs> mais mbër la kii laa moom la kontaan naa si yéen trop Lamine ak Babacar kenn du yéen yéenay numéro un waaw. yaay ñu ngi lay bëggee maa ngi leen di bëggee bu baax a baax. tey nga ànd sa doom ñëw fii si Thiès wala boog ci làmb loolu tudd noo noo yëgee ji li ma ci gën a neex gis nga moom mi ngay gis comme ni nga ko waxee dafa bëgg làmb muy sama doom ndax mooy denc sama taaw jigéen bi di xale bu baax. bëgg làmb gi mu bëgg làmb moo tax yàlla may ko chance mu ñëw vacances tasante drapeau yaayam kon xam nga ne loolu bëgg gi mu bëgg bëgg du hasard kon nag dama kontaan ci drapeau bi kontaan ci lutte bi kontaan ci Sidi Diakhaté mi nga xam ne sama càmmiñ moo ma tuddee drapeau bi vraiment mënu ma ko fay am na maa ngi sant ñëpp kontaan naa bu baax a baax wax dëgg. waaw ñu ngi lay fay Babacar. tur bi nan la. Bisane John bu Tivaouane. ñaata maa nga bëri arrêté. bii mooy sama quatrième combat. ñaata victoire. trois victoire. tey yaa daan koo daan. Boy Faye bu Ndufuk. léegi foo jëm. waaw comme sama morom yi rek dama sama morom yi jël gars yëpp sama morom lañ te damaa war am lu ma des si làmb waaw. waaw di bëggee waa Tiwaan gépp waaw di leen wax seen doom a ngi nii mbisaan xam di sant sama coach yu baax ay ñoom Alane Séréer xam nga coach Demba Diallo ñoom Mara ziar naa gars yëpp Pa Fall ba ñoom Karim yëpp doon doom ma fayam maa ñaa sama doom nday sama yaay nday Diop dama mu fekk sama njëriñ yàlla na ko fi sama rakk yëpp barke Serigne Saliou jàmm waa di bëggee sama waa gox yëpp daal waa kër xaalis yëpp nag waaw mafia bi maa leen siyaar ñoom ñëpp ñaari mbër yi si na mu concentré woo waa Ibn Réew mi la ñuy rëkk waa déglu sama xel tamit ci premier jàkkaarloo Modou Lo Balla Gaye loolu li ñu ko laay ko tëggoon xanaa lii Gris Bordeaux lay fàttali waaw ilaha illallah am di na na ñetti tëb laa ilaha illallah moof caatu Samba Jaw ca Jaxaaw est-ce que mën nga tëb yooyu baax waaw mais xam na koy déedéet xam na koy fete gos na koy daan moo ah, na cinq ans moo na tey dafa waaw moo ko daan combat spécial loolu loolu ca mbat na fàl la woon bu ñu wax kayit ay frère moo ko tëggoon arbitre baa ngi waaj a am na nu koy à droite. daal a a soufflé am na koy à droite. Samba Diaw à gauche Thiatou jarbaatam sax day jarbaatam. ab jarbaatam la. mais est-ce que làmb ji bi day nekk kit wala double kit wala double laa yaakaar. waaw la ñuy laaj. waaye Fall a la. bu Serigne Assane Fall nar ko sara. Eh, ñu koy suy Serigne Talla Ndiaye. maa la wax loolu arbi sif la na waa kaw Sara Fall nuyu nañ leen ma dina léegi wuré wa dem na këng waxi mag dem dañ taali bàgg war mbaam maa la wax loolu lu waay doon nuyu nañu waa Thiès nuyu Serigne Cheikh Mounda Fall e, nuyu nañu waa Ceneba nuyu waa nuyu Serigne Moussa Fall nuyu nañu waa Xombal lamb ji mbaa teelam jàppante am di na koy nga topp ca am na ko di ko séddire di ko séddire xeex am di na koy ko bëgg a dóor mu koy gërbal e jaatu Samba Diaw foo jaatu Samba Diaw taxawal am den koy dóor am di jàpp na ko am di baadoo daanu eh xeex rëbb am da jaatu Samba Diaw am di defal ndànk am di teengaa teey mu doon tala andi. am di daa war a teey parce que blessure lay bëree blessure boo ko amee da war a teey. teey de waaw su sax kuy bëree koo xam ne dafa laa daanoon daam looy bëree moom. teey teengaa teey am di. lambe daam mu koy bëree bu. lambe revanche des koy gérer Babacar ay wax ak yow. maam maa la Babacar sama xel laa dem ci buur ndax da ngeen waaw buur maa ngi koy nuyu sama grand. te mbërum mbërum mbërum yàllaa ci bootu buur. waaw walaay yàllaa ci tey da ngay woo da ngay weer mu woo mu taw ca kawam mu taw ca kawam. jaga mbay yàlla na ko yar la yërëm. laay séeréer ba nee na fenn. laa ilaha illallah dëkk mu sotti ko mu bañ. mënul yomb jóge combat baa ngi di ko yëkkati jaxabal lu muy def ak moom am ndeg saatu Samba Diaw. maa ngi est-ce que am est-ce que am na ko def jaxabal xatar bi ko. waaw loolu amoon na fa. am na daa mën seen moom mën def jaxabal eh, xatar bi. jaxabal lu ma lay xool may lamb may lamb. lu ma la waxoon. lan na la waxoon. am dina koy wala lu xew toppal ma lii am dina koy rof ca xabal dàq daan na ko jëli baare yi jëli mu ko daan waaye jaara sara am dina koy. oh am dina am dina koy. loolu laay laaj am dina koy. loolu laay laaj am dina koy. noog na am dina koy am Eh, ku daanu rus am pola ku daanu rus daanu nu ku ngay daanu yasi yasi daa ee eh, am di nogoy ngay daanu yasi waay jógal waay am di jógal caatu sàmba ja way daanu yasi ay waay caat jógal caat tee nga jóg waaye nga doon taaw caat wala taaw ee eh, caatoo caat caat tee nga jóg caat bi waaw champion la de champion la mën na bëre te neexul bëre da jata da géej waaye moom <laughs> neexul bëre te du saa saa ay combat day jël temps <laughs> day teg ataaya. ah neen day teg baraada ba mu teg baraada bu tegee baraada moo fuure ko naan ko rek. ji di ko naanaa rek jox ko <laughs> ba pare laaj ko kaas léwal noonu la ñuy de. waaw ba boobu. duñ ci sax yegg lool. incha allah danañ bëre danañ xeex.